boo xam ne bokk na ci bennoo bokk yaakaar bu ko ñakka a teewe amut moo xam COJER la moo xam maire la di mouvement étudiant yi moo xam jeunesse féminine bi la moo xam parti allié yépp la muy ndaw yi fare ci coalition bii di bennoo bokk yaakaar daal di amal am ndaje ci kër honorable Makhtar Diop ngir waxtaan ana naka la ñu fas yéenee def ngir waa jël élection locale yi ñu jëm ba mën a jox seen candidat ndam président tànnal ñu candidat Matar Diop muy suñu tête de ñu war a dem ci élection départementale yi ngir en tant que des jeunes républicains yu ñu doon teg ay plan boo xam ne fas yéene nañ ko am ci ginnaaw suñu candidat ngir ànd ak moom jëm ci askan wi fenn fu nekk ñu teg fa suñu tànk kenn ku nekk ci askan wi ñu wax ak ñoom ngir li ñu jëm ci ay élection ñu mën a ànd ak ñun tey gëm naa ni politique boo ci dindee jeunesse dara dur ci des loolu moo tax suma xol sedd ci tey loolu moo tax ma am yaakaar ci processus bi nga xam ni taxawal nañ ko. je pense que ñun dañoo namm ndam il faut ñu wax ko loolu mooy dëgg ñun dañoo war a sigil président de la république jox ko ndam fierté la nag mu tànn mu tànn ndaw ci ñun génnee ko jiital ko loolu fierté ñëpp la pour man ñi nekk ci parti muy ndaw ñi muy mag ñi muy ñëpp. mais taxawaay bi ñu war a am en tant que ndaw. mooy taxaw ci kanamu parti bi taxaw ci digg bi taxaw ci ginnaaw te loolu mooy suñu position. ñoom soxna yi ci seeni kàddu ñuy jiital sant njiitum réew mi président Macky Sall ci nu muy jàppale ndaw ñi lee ñu amit kontantement lool ci tànn gum leen tànnal honorable Matar Diop ba tax na seen yitte mooy taxaw ci ginnaawam jàppale ko. ñuy sant son excellence nag président Macky Sall ndax xam nañu ko jox ndaw cër yi la ndax boo xoolee préfet ñu ñu ko fal ñëpp daanaka moo am ay 35 ans boo demee ci côté magistrat yi ñi ko fal ñëpp amuñu ay 35 ans kon su ñëwee département mbake tànnal ñu honorable Matar Diop nga xam ne bi mu nekkee un conseil lépp lu mu mës a am rek indi na ko ci ndaw ñi tey gis na ku ne gis na mën mii lii fi am li ci honorable Matar Diop def sol blouson wàcc ci mbënn mi kooku gëm nañ ne bu ñu ko joxe conseil départemental duñu am jafe-jafe njàng duñu am jafe-jafe ay financement du ñu am jafe-jafe liggéey ci hôpital yi duñu am jafe-jafe boo xam ne si ne ndaw ñi danañ ko soxla di nag un appel solennel aux femmes di lancer un appel solennel aux jeunes filles ndax nag fii ku falu jigéen ñee la fal la bal est dans notre camp sama camarade wax na ko léegi ñun doonut lu ñuy laam-laamee parce que xam nañ ne victoire bi dañ koy téye ci suñu loxo ndax dëgg rek kay dëgg waxuma Matar li mu jàppale fii mais réalisation président de la république war naa mën a tax candidat bi nga xamante ne si moom la ñu tànnal mu gañ te incha allah nañ ko gañ ndax jekk nañ ñi fare ci parti allier yi ñoom it de kenn demul ñu des daal di ñuy nangu soi bu njiitum réew mi président Macky Sall ci honorable Makhtar Diop. ñuy lancé appel jeunes yi ñu bokkal parti ngir ñu taxaw ci bile campagne jàppale honorable Makhtar Diop ngir mu mën a gagné conseil départemental bile. ñuy woo bépp jeune bi nga xamee ne yaa ngi nekk si biir Adélie Sall ak bépp responsable militant ak sympathisant yëpp ñu ngi leen di woo. di la wax ni soi bi président Sall def muy honorable Makhtar Diop pare nañ pour défendre li nga xam ne mooy liste bi. danoo pare pour dem si askan wi ñëpp. bàyyiwun fenn kenn. xamal leen njariñ li nga xam ne si moom leen président Macky Sall bëggal ba tax mu tànnal leen Matar Diop mii. président Idrissa Seck dafa woo ma fari biir biir biroom ne ko ma fari. bu ma la tànnoon da kontaan mu ne ko waaw mu ne ko tànn naa koo bokkal jikko mu ne ko kan la mu ne ko Matar Diop ma fari ne ko kontaan naa contentement xam si gëñ naa koo kontaan ci sama dund. danaa ko jàppale danaa ko yiir Tout ce que soxlaa bu ma gestoo dana ma euh, le coordinateur du mouvement des élèves et étudiants républicains. nous avons lancé un appel à toute la jeunesse. Nous avons lancé un appel notamment à beaucoup d'étudiants, à beaucoup d'élèves, pour que ñu battre campagne. dem voter honorable Matar Diop parce que c'est le meilleur choix ci lu jëm ci wàllum ay lycée conseil départemental nous avons am am choisir Matar Diop. su ko defee lépp lu nga xam ni dana jëm ci wàllum éducation jëm ci wàllum santé jëm ci wàllum développement bu boobaa dina gën a mën a yomb bien vrai que président def na ci lu bëree bëri mais bu ñu falee honorable Matar Diop dinañ gis ni incha allah lu bëree bëree bëri incha allah dina yokk. taxawaay bii nga xam ne ndaw ñi daal dinañu koy am moom honorable Matar Diop di candidat bu coalition benn Bokk Yaakaar ci conseil départemental bile daal dina koy rafetlu di xamal ndaw ñi ne lii gën na ko dolli yaakaar waaye fas na yéene yi de jàppale leen ci ay moyens bañ mën a gagné combat bile. dama leen di encouragé di wan ne yéen parti bi mën na konte ci yéen mooy jeunesse boo xam ne tey jii ñëpp c'est la première fois moi. Je suis jeunesse pour xam nous ñu bokk pour président Macky Sall li la je pense que détermination bi ngeen am ni la la fayda bi ngeen am ni yàlla mën que dimbal bëgg ñu am ko koy def xamal da ngeen ko jot comme que da ngeen je pense que moi, li ci ëpp incha ak li nga que te bu leen fàttee di bës cloche bi mooy tax mu leen di man di signaler bépp vidéo boo xam ne dugal nañ ko ci site bi